Euh, léegi journée médical yi euh, lañ lu yàgg dëgg la ndax fukki at ak juróom-benn euh, du benn bis donc besoin réel de santé la ndax Pire boobu ba léegi amul centre de santé benn dispensaire a fi nekk infirmier chef de poste fi nekk jàmbaar la mais mun la régler population besoin population donc il nous fallait un centre de santé centre de santé nag dëkk yi ko am ci Sénégal yëpp gënuñu ceeyee ndax Euh, pire euh, dëkk bu rëy la euh, Pire cité religieuse boo am mu ngi Pire yaafusul ndax ñu ngi góorgóorlu ak journée médicale yi ak cotisation waa Pire ba tabax maternité góorgóorlu ñu ak ñeneen ñuy dimbali ba am centre de dépistage pour le cancer du col te am na fi ñu góorgóorlu nañu ba am terrain bu yaatu boo xam ne clôturé nañ ko pour donc on a tous les atouts. pour mu e et que pour njukkal njukkal doomu Pire yi ndax euh, Pire euh, daanaka euh, lu mat ñaar fukki docteur cosaanoo nañ fi ci ñaar fukki docteur yooyu aw moins am na ñetti professeur professeur nag li prof li Birame Diop daan wax mooy kiy jàngal docteur yi donc loolu ne serait que pour ça waroon nañoo njukkeel pour ñu am centre de santé ak booleeg effort yi ñu def yëpp mais léegi Euh, am nañu euh, certitude que dinañu am centre boobu ndax dig nañu ko euh, gouverneur wax nañu ko médecin chef de région wax nañ ko que pire prioritaire la pour ñu construire centre de santé loolu loolu am solo la pour ñu. prise en charge bi moom macha allah ndax loolu lii ñuy def lii beneen forme médecine la ndax bu njëkk boo fekkee ne da ngaa feebar fii war a dem ndakaaru laaj na nga am passe Ndakaaru aller retour laaj nga am kër goo dal laaj nga am ku la gunge hôpital laaj nga am passe car mbaa passe taxi bu la yóbbu hôpital laaj na nga am ticket pour dugg biir hôpital laaj nga am rendez-vous ak spécialiste pour gis spécialiste ba pare mu bind lay ordonnance euh, bind lay analyse mais léegi ñun dañoo indi spécialiste yooyu nga xam ne yoon Ndakaaru euh, kenn mu leen a jot ñu indi leen fii ci population yi euh, docteur Boissy mi ñëw ak appareil électroencéphalogramme ñuy def ay électroencéphalogramme par exemple Ndakaaru daanaka boo compté Ndakaaru ba mu daj ba Sénégal ba mu daj daanaka juróomi appareil yi am benn baa ngi fi Pire tey fii la yenn donc lu am solo la loo xam ni et population yi gis nga ni ñëwee bari nañu daanaka tey seet nañu lu mat juróom-ñetti téeméeri euh, juróom téeméeri nit dongal nañu daanaka téeméeri xale euh, ca mi ngi mi ngi continuer am na ñoo xam ni dañoo traîner ak ay giir ay kiis ay lipoom yoo xam ni yooyu mu faj leen. boo demee dañ lay laaj ay deux cent mille ba trois cent mille francs tey réglé nañ ci lu mat quarante ak euh, doomu Pire Abdou Yassine Ndoye moo ñëw euh, di def lool ci mi ngi continue donc euh, liggéey bi il y a besoin réel nit ñi soxla nañu ñu leen jigasi pour di leen faj ndax ñëpp amuñu paasu Ndakaaru ou bien paasu beneen hôpital. amoon nga kaw ah, léegi tey. Euh, am na benn jigéen boo xam ne bi dafa am euh, goitre goitre boo xam ne bi dafa indi hyperthyroïdie bi mais ba ñu seetee kayit yi mu yor garab yi ñu ko doon faje kenn waru ko woon a jox donc bu bu ñu bu ko bàyyi woon noonu rek day continuer ba ba ba ilaa yow mi di gën a feebar di gën a feebar mais yàlla baax na tase nag ay spécialiste seet nañ ko gindi nañ ko wan nañ ko traitement ca dinañ ko suivre ba keroog mu wér tese nañ feek benn cas boo xam ne bi ah, mënoon naa indi jéeya ndax xale la bu góor bu góor bu ñëw yóbbu woon pour jongal mais boo euh, làmbee euh, mbuus yi mu nekk ci suuf doo fa daj dara dara nekk fa dara nekk fa ndax euh, testicules yi mu ñu ngi woon ci kaw dañoo aju woon donc testicules yi bu mu wàccul ci biir mbuus bi doo doo mën a am ferñeent yi tax nga am doom donc kooku bu ko jàppoon rek daal di koy patam patamee jongal ko mu continuer màgg noonu lay màggee du ba ilaa yow diin du mus am doom ca du kenn du xam lan la ndax du kenn du ko kii mais euh, xarañu docteur yi tax nañu bi ñu ñëwee ñu seet ko euh, daal di ni ah kii kat vraiment euh, il faut que ñu opéré opéré nañ ko wàcce nañ testicule yi jongal ko ah allah bu fu nit ko amee doom yàlla dina ko dina ko may dina ko may doom loolu aussi loo loo lu am solo la ndax boo boo ko deful woon bu ñu ko deful woon dina indi yeneen yeneen problème. Hmm. waa boolu liggéey piir di gërëm fondation Sonatel gërëm professeur Serigne Abdou Ba docteur Ndaraw Ndoy ak professeur Babacar Fall ak seen seeni rakk ak suñuy doom ak jarbaat bu nga waxee yàlla def ñu baaxee ñun piir am nañ lu ëpp ñaar fukki docteur loolu ak i professeur ci biir may gu am solo la compétence transférée nekk santé bokk ci muy loo xam ne kon ñun la journée médicale yi waa PUR def ko li ñu gërëmee waa piir mooy dañu yàgg gëm seen bopp yàgg a compter ci seen bopp. moo tax ñu tase woon fi en 2000 muy fukkeel édition bi ak juróom-benn ci li jitaayu ma Mamadou Guèye ma di ko gërëm di di di ko ñaanal fële mu nekk yàlla xare ko àjjana di ko sant di santi mbokkam parce que moom moo amoon vision boobu moo ak rakkam yi ma tudd léegi ñoom professeur Serigne du Ba. Euh, ñu indi loolu doomi Pire la ñu fi lañ dëkk lan lañ mën a def pour dëkk bi ñun santé la ñu xam nañu ñëw at mu ne ñetti fan ak sunuy xarit indi ñëpp ñu faj ñu dëkk Pire ak tund Pire ak kii ba tey jii ay junniy nit ay jóge ci département bi ak région bi di ñëw loolu rafetlu nañ ko trop comme ni mu ko waxee plateau yëpp a ak agsi mais dolli ci aussi euh, ñu nekk ci du defe naa di joxe exemple que am réew pour ñu defar ko il faut ku nekk jàpp ci. te il faut fekk nit ñi organiser wu ba pare ku nekk jàpp fi nga war a jàpp gouvernement bi su ñëwee day moccali rek te ci loolu le président la république ak premier ministre madame le ministre de la santé ñu leen di gërëm ak médecin chef régional bi ba ñu dégg ak Pire fu mu toll ci dëkk bu mag fu mu toll ci nekk dëkku diine ci Sénégal am fi cosaan boo xam ne daf ko def ak ay doomam ci wàllu médecine li nu wane ci réew mi ak li nu wane ci dëkk bi ak population ni ñu takkoo pour ñu defaral ñu benn hôpitalu 80 lits mu centre de santé équipé nouvelle génération Ah, ñu bëggoon ñu ko defal parce que loolu bu ñëwee non seulement am na njëriñ ci dëkk bi waaye am na njëriñ ci tund wi waaye parce que réerewul kenn ne département Tivaouane ci département yi gën a mag la bokk gën a ëpp population la bokk waaye gàmmu Tivaouane gàmmu Ndiassane gàmmu Pire ak yeneen xew-xew yi fi am yëpp laaj na ñu am ay équipement standard de qualité méngoo naa aussi ak politique bi nekk ci euh, ci plan Sénégal émergent nga xam ne dañu bëgg kenn dootul dem Dakar te loolu la ñu journée médicale yi wàññil doomu Pire bu dul feebar bu la bett dal la mu dab la ak waa tund bi seen Dakar léegi mooy ñu xaar ñetti fanu Pire yi pour ñëw fekk fa professeurs yi comme ni nga ko waxee quarante interventions chirurgicales ci yoo xam ne nii yu gënoon compliqué la plus de huit cent consultations rien que tey ak lu mat ñetti téeméeri xale ñu yaakaar dañ leen fal loolu macha allah mënuñu ko fay ñuy gërëm nag partenaires yi bi ci jëkk mooy fondation Sonatel. xam ne chaque année ñu ñëw jàppale ñu bi ci tegu mooy fondation Servir le Sénégal ak doomi prier bon volonté yëpp nga xam ne nii yéen presse bi saa yu ñu wootee ngeen ñëw yendoog ñoom ñetti fan relais yi yëpp woon nit ñi vraiment relais yëpp parce que affaire bi du faj rek mais dafa ànd ak ay causerie ak ay information du nuyu professeur yi fi mag professeur Galaye Diaw professeur Maïssa Touré ak ñoom ñëpp daal ñu ñëw